doole parce que am na jumtuwaay gën naa bari parce que léegi soo xoolee tracteurs si bari nañ si dëkk bi moom si boppam sax may na jigéen ñi tracteurs yu bari dem na bi si 96 tracteurs tracteurs yooyu yëpp ñu ngi liggéeyal jigéen ñi ñu ngi leen dimbal loolu yëpp soo gisee moom mu def ko mooy pour noppal jigéen ñi seen coono soo xoolee si wàllu éducation bi ñu ñëpp xam nañ ne mu ngi def dara mu ngi si éducation bi ah, indi na université bi xam nga ne bu njëkka jigéen pour mu génn dem jàngi dafa jafe woon su fekkee ne sa yaa ngi war a dem jàngi waxuma la sa jàngi euh, Gambie waaye soo waree génn jàngi te famille bi amuñ lu bari góor ñi lañ daan fayal ñu dem jigéen ñu dem daan jàng so dee loolu yëpp jëm kanam la boo xam ne am nañ ko ci Gambie bi soo xoolee ñu dee fayal ñuy dem jigéen ñu bari dañ si de bokka soo xoolee place yi tey doo na wax ne place bi office bi jigéen góor ñi rek lañ dee jël liggéeykaay loolu amul Gambie soo tamit nekk na réew boo ne su fekkee ne yow jigéen nga ngay docteur euh, am docteur bu góor seen fay su dee seen liggéey yëpp a am seen fay yëpp benn laa nekk soo am na réew yoo xam ne su jigéen liggéeyee dañ ko fay lu gën a tuuti góor liggéey ñu fay ko lu gën a bari loolu amul Gambie nga ñëw soo passé moom jëfam duñ si mën a wax sax mun nga ko ba programme bi jeexte lu jeex waaye ma la jox xayma rek soo xoolee léegi mbiri eh, njaboot jigéen ñi suñ ombee pour dem lopitaan ak mbiri xale ñu ñëpp xam ne loolu daf ko noo daf ñu noppal si mbir moom mbiri jàng bi ñun ñëpp gis nañ ne noppal na eh, famille yu si bari te soo gisee ñi si dee gën a soona mooy yaay yi soo kon lim si def bari na loolu lañ de wax political will at the highest level so nga ñëw ci wàlli sarta yi suñ constitution bi soo ko xoolee biñ ko defaraat day gis ne seet nañ ci mbiri góor ak jigéen parce que lépp loo xam ne rek eh, li ñoo wax right loo loo eeyoo dañ ne jigéen lim eeyoo def ko war a am góor lim war a eh, lim eeyoo daf ko war a am wala góor gi jigéen di lépp lu ñoo def ñu seet kenn ku nekk lan mooy situation ak yenen ak yeneen ak yeneen nga ñëw si suñ yeneen luwaay yi nga gis ne Gambia am fi mu nekk nii am nañ Women's Act Women's Act bi Gambia dafa am nangutoo yoo xam ne daf ko nangutoo parce que dañu amoon policy 1999 2009 day gis ne policy boobu noonu dafa am yu bari yu mu doon oote policy boobu dafa doon oote jànga policy boobu dafa doon oote wérgu yaram policy boobu dafa doon oote liggéey am policy boobu dafa doon oote dikkuwaay yu seela policy boobu daf doon oote jàmm policy boobu noonu daf doon oote déggoo so dañuy gis ne nag am na yu bari pour mu am foog ñu def ko ci loi so loolu Gambie ñun am ne ko te loolu réew yu réew yu néew ñoo ko am soo xoolee tam at the international level am na nangutoo yu bari yoo xam ne def nañ ko Gambie mooy ne soo xoolee ñun saay nañ sidaaw sidaaw kayit la boo xam ne moom dafa xool lépp loo xam ne euh, cëri jigéen la daf ko yokka euh, comme right jigéen mënuma ko ci olof Euh, dafa xool jigéen li eeyoo mu jox ko ko lépp loo xam ne daf koy sonnal mu génnee ko ci wàllu fitna soo dee ñun sign nañ loolu bokk nañ si réew yi nga xam ne sign nañ loolu noonu et puis itam emuñ si sign bi rek waaye ñu ne defar nañ lu waa si Africa level bi tamit am nañ lu ñoo waa Africa Women's Protocol day se protocol bo tam comme sida bi rek la moom tam dafa xool li jigéen eeyoo ak lépp loo xam ne mu ngi dal jigéen te euh, dafa aay pour ñu ekkati ko loolu tam réew mi sign na ko te loolu yëpp soo xoolee nangu nguur gi la ak nangu suñu jiiti réew mi ak suñu vice président baax bi ñu am. so yes ne nangutoo yooyu noonu ñun sign nañu am si waaye def nañ ko luwaa pour mu dox suñu biir dëkk bi so ne gis ne fi mu nekk nii amaat na yeneen ñaari luwaa yoo xam ne paasaguñ ko mu nekkal luwaa waaye bind nañ ko yoo xam ne si wàllu fitna laa nekk si kër gi ak tamit comme daanu si kaw jigéen ak yooyu noonu yooyu mu ngi ñëw. <clears throat> ñu ngi yaakaar ne balaa at bi jeex eh, pass nañ ko up to cabinet subcommittee level so léegi des mu dem cabinet after mu dem national assembly ñu pass ko so léegi wàlli luwaa yi loolu la policy yi amoon policy boobu implement ko ñu def ne policy bi amu ko woon mooy mbiri jënd dëgëru toon e eh, bay tamit mbiri HIV AIDS ñëwagu toon ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak tamit eh, mbiri ICT mooy mbiri comme téléphone yi nii ak ay yooyu so des ne loolu dugal nañ ko léegi policy bi ñu am 2010 la 2020 léegi gis nañ lépp loo xam ne amutoon ci policy boobu dugal nañ ko et pare policy bi tam gis nañ ne méngoo na ak ak sarta yi nga xam ne moom la yeneen secteurs yi di doxal par exemple li li li policy gender policy bi di oote ci wàlli jànga moom ngaa fekk ci education policy bi li policy bi di oote ci wàlli wér-gi-yaram moom ngaa fekk ci health policy bi et pare tamit day gis ne policy bi nekkul ne women's affairs rek ñoo ko implement waaye day gis ne yeneen secteurs yi ñoo ko implement ba pare développe nañ ah, monitoring tool boo xam ne moo ñoo dimbale ñu ne ok su ne fi lay fukki at yi lii lañ am dañuy gis ne at bu nekk dinañ mun de see di seega di xool lan lañ am ak yooyu noonu ak tamit soo xoolee si wàlli jigéen ñi ñu nekk ci place yoo xam ne dañ fa tëralee kaddu loolu bari na si Gambie bi mhm. suñ national assembly ñu ñoo xam ne ne bu njëkka jigéen ñi nekkuñ fa woon wala bate waaye léegi at least lu mu bon bon jigéen ñi naan fa président suñ nominé daf dee nominé jigéen ñi tey soo xoolee suñ député speaker bi jigéen la mhm. nga dem at cabinet level dañ dee dem ba 40 percent tam jigéen la te place am na fa yal na ko fa yàlla gën a yaagal te mhm. aar gis ne am néegi député yi am ñu bari ñoo xam ne jiite woon nañ ko fi nga dem si private sector bi jigéen ñi naan fa ñu nga nekk managers ñu ngi nekk supervisors nga ñëw ci government jigéen ñaa ngi nekk ministres ñu ngi nekk permanent secretaries ñu ngi nekk directors ñu ñëpp si leñ bokk. soo ko nee gis ne jëm kanam bu bari am na soo si wàlli jëm kanam yi yii mooy yi nga xam ne mun nañ koo waxtaan. Mm-hmm. waaw wax nga dëgg mm-hmm. ah, dégg nga li Aida ci mm-hmm. liñ mun a pugaroo ci yokkute jigéen yi liñ am ci suñ biir yaakaar naa yow yow ci sa boppa yow it exemple nga ci jigéen ñi parce que jigéen nga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 Euh, maa ngi gërëm ñi ñoo seetaan yëpp ayda da daanaka wax na li nga xam ne wax ji li si ëpp yëpp ay wax na ko te noonu la demee ni ko waxee noonu la demee waaye man li ma njëkk a wax mooy suñ euh, jiite réew mi di cheikh professeur alhaji docteur Yaya AJJ Jammeh ñun mënuñ ko fay tey soo gisee jigéen ñi mun a am doole si dëkk bi jigéen ji mun a xam ne am nañ place ci réew mi parce que bu njëkk ba jigéen ñi foog nañ ne rek fuut ak passé la ak jur doom xëy na fii ñoo daan dem nekka ticca ñi nekka noos waaye fi mu nekka su gisee loolu yëpp mu deñ suñ jiiti réew bi moo tax te bi foo loolu sax nañu wax ne sécurité bi xam nga dëkk bu amul sécurité maa mun naa waaxu rek ma jël la gaañ la wala ma dem sa néeg jël sa bagage waaye dëkk bi li ñoo njëkkaa njëkkaa gërëmee président mooy sécurité bi ah dara munta am ci gannaaw sécurité te wax dëgg yàlla Gambia fii ñun am nañ sécurité di nga tëdd nelaw fu la neex di